Ready, Lenny. wala waa kaw gis fay na ko. très bien a ngi Dow Ngoné waa kaw a ngi naan waa kaw a ngi nale. fay leen ba mu Touba wax naa la ñoom Aliou naan leen waa Géejawaay tey dañoo ràppaaju nee nañu libéré Sonko libéré Sonko da la ñuy wax nii waaw ñoom ñooy ràpp nii gis nga leen grève bi xeer yi partout oh xoolal kële gaañ nañ ko xoolal kële oh, oh gaañ nañ kooku ndeysaan Omar Omar kenn gisu leen te man blouse yi ma gis seen blouse la wala police yi